sama kaw ma koy sante yàlla mais mën naa ni ndam loolu mu am sama kaw moo def mbër. d'accord. waaw ndax permettre na ma ma defaat kom amat quinze jours presque douze jours mam komba mu tombé woon ak màggal xam nga année boobu màggali wu ñu nekk ak sama gaay yi xam nga waajal làmb ji yàlla suturaal ma maam ji ndam. Mm-hmm. ñëwaat continuer sama ñaata ñaata euh, euh, nga bëre. def naa def naa douze combats. Mm-hmm. am ñaata victoire neuf ah. neuf victoire. waaw. mais yaa ngi adversaire euh, euh, fils de Balla yéen a euh, victoire de. waaw waaw waaw ñoo tolloo victoire ñoo tolloo victoire. chet loolu loolu loolu dana yéeme danañ danañ ci ñëw danañ ci ñëw alors combat hmm. défaite yi nga yi nga am ban moo ci gën metti défaite yi. ah mën naa ne defet moom yëpp ma metti ndax ndax amul bu ma ci mettiwul quoi mais nag mais am na benn boo xamante ne am na benn boo xamante ne dana di ko xalaat nga ne non mais nu mu demee nii quoi mu jaaxal la waaw waaw ndax amoon na journée boo xamante ne mooy loolu noonu làmb joo xam ne damaa damaa déranger mbooloo bu bëri jour boobu mën naa ni Malika yëpp a génn mm-hmm. comprendre nga muy suma suma diggante ak Eumeu Sène junior mu doon làmb soo xam dañ ko préparé def ci def ay moyens yu bari ñu ñëw làmb ji waaw làmb ji demee noonu lamb ji waaw lamb ji demee noonu ma bëre lamb ji yëpp sama adversaire di ma magum xam ma bàyyi ma combat bi ma nekk ci kërti kërti kërti nekk ci tëju xam nga mënuñoo génn ñoo xam ne àdduna la quoi mhm. victoire yi nag ban victoire moo la gën a neex fu mu toll ci sa carrière. <laughs> victoire yi. <laughs> ma xool euh, maag maag maag bébé Modou waaw. lan moo damaa jël combat boobu ñëpp ne moom moola la mën. Mhm. waaw non boo bu jàppee nangam ak nangam kooku day jàpp sax entraînement Modou Lo xam nga. rumeur man leen kii yàlla xam na ne bu arbitre ne prix ma dal ci kawam mais ñu bëri gëmuñu ko woon mais xam naa xam naa sañ-sañ bi nekk ci man far yàlla dogal arbitre bi ne prip ma heurteel ko lamb jooju deful une minute. d'accord d'accord. Mhm, mhm. alors général sa sa sa gabarit sa gabarit état physique bi nga yor. lan euh, mhm. nga considéré sa bopp lourd nga considéré sa bopp wala semi lourd. mën na jàppee naa sama bopp lourd mais par rapport ak samay combat man du ma bëree bëree comme poids hmm, lu tax. man su may bëree man fexe naa ba liggéey ba am ba am rapidité am am vivacité am résistance ba sama poids du ma duma duma du ma ci benn yoon ci sama combat. Hmm. Mhm. kon yow combat bu intense nga xamante ne combat yi di jël en général lu bëri calcul xeex bu bëri la xam nga intensité contact xeex contact xeex yow du la du la sonal. non non du ma sonal. du ma hmm. ndax ndax dañ koy liggéey. dañ koy liggéey tàmm nañ loolu noonu waaw d'accord alors euh, nga nga nekk euh, koo xamante ne dafa am gabari gabari bi euh, nan la nan la ñëwee ci yow maanaam masse bi masse bi ne ci yow complément alimentaire la wala judduwaale la wala la la non ñàkkul ni tamit mën na mën na am judduwaale ndax xëy na loo gën di màgg sa yaram di gën a ubbeeku ndax mm-hmm. man mën naa ne suma mère moom macha allah nitu yaram la woon mënul woon dox presque lu bari ndax ndax ndax yaram macha ma waaw xam nga xëy na kon jàpp nañ ni ñun bu ñu bu ñu bu ñu amee état rek dafa war ndax ay mm-hmm. nitu yaram lañ mais tamit boole kook euh, lekk lu baax di récupérer bu baax di récupérer bu baax di récupérer bu baax nga dem ba am nga dem ba làmb xam la nga am plus de euh, nga am douze euh, plus de douze combats wala plus de dix combats. ngay continuer di bëri mbapat euh, c'est-à-dire ngay bëri ci tournoi yi. Mhm. te tàmm nañu gis gars yi bu bu ñu commencé am tuuti tour dañuy commencé bàyyi. je sais pas mbapat yi. ci yow daal lañ ko sentiré ak ñoom Franc peut-être ak ñoom Reug Reug la ñu gis ni ba tey yéen a ngi yéen a ngi compétir ci tournoi yi lu tax. Hmm. non dañ cee gis njëriñ. ndax mën nañ ni mbër boo xasee ba commencé laal cent vingt cinq vingt cinq kilo rek yaa ngi commencé dem poids lourd mm-hmm. mais léegi ci kaw poids lourd boobu noonu bu fekkee doo compétir lu bëri après di nga yor poids boo xamante ne mën na laa handicapé li nga bëgg a def doo ko mën a def mm-hmm. te te kii competir ak ki dul compétir mënuñoo yem ndax saa booy compétir rek poids boo yam boo yor attan sa cardio tamit mën na koo attan mais bu fekkee comme par exemple combat arène yombul année bi benn nga ciy am wala ñaar bu fekkee hmm. da nga koo toppalante noonu bu basé ci loolu noonu mën nga dem ba yor état boo xam ne par rapport ak yow sa tolluwaay. Hmm. comprendre nga. waaw ndax hmm. souvent bo boo xoolee boo xoolee ñun li ciy daj ci compétiteur yi mënuñu koo daj ci combat arène benn fan benn benn benn combat non waaw kay moo tax nag lool noonu dañ cey gis njëriñ. oui nga bokk si ñu nga xamante ne euh, dañoo dañoo tëj ci ci ci ci euh, mbapat yi euh, ci tournoi yi mm. nga amee ndam fu nekk alors ñu gis ni bëri nga fi année boo xamante ne ñëpp di wax général mooy année bi ngay daan rëgëj d'ailleurs mm-hmm. moment bi nga koy daan ñenn ñi foogu ñu woon ni sax war nga koo mën a daan mm-hmm. je sais pas lan la woon lan woon moment boobu noo ko dundee non liggéey rek. mais moment boobu noonu. amoon nga amoon nga benn publicité boo xamante ne bu extraordinaire lool. général moo daan rëg loolu coow li doyoon waar lool. waaw doyoon waar trop mais man mais man yorewuma coow li. Hmm. xam nga souvent mbër coow da lay dab wala coow fekk ci la. nga yenu coow li ànd ak moom mën na la empêcher après ci lu bëri mais man yenuma coow li ndax jour bi ma ko daanee dimanche ba ma xëyee lundi damaa dem entraînement. Hmm. semaine yi ci topp tamit ba làmb amaatee damaa dem compétir. kon dèjà man fàtte naa loolu hmm. ndax xam naa ni carrière laay def nekkul benn combat laay pour carrière te carrière nag oh. concentré wu nekk sa bopp ndam loo am jàpp ne war ngaa amaat gën a rëy boobu noonu d'accord ñu gis ni <coughs> ñu gis ni sa sortie yu mujj yi sa sortie yu mujj yi daawul demee comme surtout bi saison bi tijjee mhm. gars yi commencé bëree xam nga nga daan dem ngay dem di ñàkk mais ñenn ñi commencé posé wu ay question te saa yoo ñàkkee dellu ñenn ñi foog ne sax mhm. général est-ce que est xamuñu point faible am lan waral euh, année bii taxoo koo dox waaw non xam nga xam nga souvent day metti ndax ndax saa defee résultat ci rek après mën nañ ni sa moroom adversaire yëpp kuy ñëw yow lay waajal waa làmb dafa am benn réalité bu ci nekk boo xamante ne ku dundul làmb mënoo koo xam mais ñun nag ak suñu gëm-gëm des fois dañ ci daan dund loo xamante ne mais jomboon nañu weekend jot ñu ne du ñu bëre mais des fois ñu yëg loo xamante ne mooy loolu mais dañoo gëm ni comme sport la ñun ñoo ko bëggal suñu bopp te li ñuy def compétir la ndax affaire da am moom mu ngi ci loxo suñu borom mais nga dem participer rek même bu dee da benn combat ñaari combat amaana mën na doon yokkute ci yow moo ñu permettre woon ñuy dem affaire yi di xaw a tàgga témbe mais tamit teewul taxul ñu bàyyi ndax gëm nañ ni pare liñ defoon daaw ren ba ñuy waajal saison bi liñ liggéey sax liggéeyuñu ko daaw ñu ñëw affaire yi di dëgër ñu xam ne tamit amaana waaw sport moo demee noonu nga am combat arène euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, fils de la mais teewul waaw ah fils de doo bàyyi jàmbur kenn fils de balle bàyyi jàmbur sa fils de balle nag sonle na quoi <laughs> alors man nag damaa xaw waaw. waaw waaw alors nga am combat ak Fils de Balla en général dañoo gis ne mbër yi bu ñu amee combat bu ñu jëlee avance dañuy dem laaxatu ji du ñu dem ci euh, du ñu ci mbapat yow nga bokk ci euh, exception yi daan nga dem ci mbapat yi lan la pour compétir euh, pour pour dem pour am compétition la wala koppar gi la wala lan la. non compétition la koppar moom dañ la koy fay da nga koy yor mais compétition yi la. compétition bi mooy lépp quoi ndax man souvent dama doon préparer combat ba mu des vingt jours wala quinze jours ma nekk dama doon nekk ci compétition yi ba mu des ay vingt jours quinze jours ma soog a ñëw. soo ko préparer sama soo ko nekk concentré sama làmb mais dama ciy gis njëriñ. benn benn adversaire boo xamante ne guddi yi ñu toll euh, la ñuy muy Franc. Hmm, mooy kan. ndax mës ngaa tase ko Franc da daje na ñaar yoon. noo leen def. benn bi dañoo niil dernier bi mu am ci man ndam mais regretté wu ma ci ndax xam naa ne bi muy am ci man ndam man maa man maa man maa def lépp man maa bëre maa forcé maa sacrifié wu. yaa sacrifié wu. waaw maa sacrifié wu ndax man maa jël ay risques yoo xamante ne moom li mu doon imposé bu ma ko ci toppoon lamb ji mën naa jeexee noonu te suñ premier combat noonu la demee woon. dañoon bëre ba combat bi metti mu xam ni kii fii munul am dara mu téye boppam. moom moo samp niil jeex moo samp niil moom. voilà moo samp niil moom moom doon ci mbëru poids boo xamante ne bu la songee ñaar mu të téye boppam bu mënta buux génnee la du la daan. moom waaw. kon bu testé mu compliqué day taxaw. day taxaw moom du forcé. Franc bu la bu la bu la bu la jëlee. jële sa tànk bàyyi la naax la daw yokku la nga koy mboot mu suruxal la bu la ko defee mu të defaat la ko mu të da lay jéem a day téye boppam doo dul jël risque wala mu jéem a jàpp dëgër buux la génnee la nga jël avertissement mu mu jël làmbam c'est très rare nga gis Franc mu jël tournoi boo xamante ne dafa daan mbër yëpp buy daan ay trois mbër lay daan wala kaat bu ci des yëpp ay buux la koy génnee. <laughs> mais sa waay Franc est-ce que du la leen ëpp ñoo ko gën a nekk xale te xam nañ ni li muy daj la ñuy daj. wala ñuy daj lu ko raw. mënuñoo mais ñu toll na ko yàlla yokkal doole mais ñun suñu bopp lañ xam Franc mënuñoo ëpp doole. Franc gënuñoo bu fekkee Franc bu la jàppee buux la koo def man musuma buux ma ba génn géew bi. su ma combat moom ñaaxaar dañuy dañuy bëre ba combat bi metti mu koo jeexal foofu dama koy dama koy daw wër ko. yàlla xam na loolu dama koy daw wër ko téye ko fu baax fi ma koy fi ma koy fi ma koy téewee man dama koo takk dajale ko ba koy ba koy tegal seize sama tànk tarxiis ma ma jiitu ma teg fees moom muy soog a ñëw comprendre nga kon loolu noonu ci biir bëre la hmm. mais mais mais tooguma di ko seetaan moom mu may buux di ma génnee ci làmb ji man loolu xalaatuma ko xanaa du moom may génnee Mhm. kon yow bokkoo ñi si ñi nga xamante ne euh, euh, euh, mu ngi leen di mu ngi leen ñu ngi bàyyi xel quoi. non non man aw ma mbër bu may bàyyi xel ci simple bi muy Franc ak di keneen ak keneen comprendre nga. Hmm. ndax man su may morom lañ même génération lañ. au contraire mën nañ maa mag mais tamit même génération lañ li ñuy daj lay daj. alors. Hmm. ñu gis ni da jël fils de la pourquoi fils de Balla. Hmm. pourquoi Fils de Balla bañ a ane balance rek. nga ni. bañ a ane balance ndax mbër boo toogee benn fan bëriwoo ko pertement la de wala du pertement wala saison lëmm nga toog ko bëriwoo ci combat arène xam nga dafa am ñoo xamante ne ay amateur arène lañ te dañ ñu fay. xaare waaw am ñoo xam ne moom simple bi moo leen di rey bu général ñëwul simple dañuy dañuy stress mais man pour man général pour man général da may wax fils de balle dama koo jël parce que dafa tàng fils de balle dafa toj làmb moo tax ma jël ko nga ma bañ a année blanche. non bañ a année blanche du question da tàng ak ñàkk a tàng man man gëm naa ni sama morom du gën a tàng ci làmb. Hmm? sama morom mënu maa gën a tàng ci làmb. comprendre nga mais mais fils fils de balle bi nga koy jël bi nga ci ci ci combat bu doy waar la jógee ah victoire bu doy waar. Mhm. mais bien sûr ci victoire bu doy waar la jóge mais tamit attention victoire boobu noonu gars yi doon nañ contesté de. ah na lañ contesté mu jàpp mu jàpp mu jàpp tafaaleer zongle ko. dem ñëw ne moom def na recours gars yi gars yi nee nañ jël amul man dégg naa rumeur boobu de mais nag. Eh, moo am victoire nee moo daan eh, moo am victoire. <laughs> ah loolu la man adversaire am daal dégg naa ko bu taxaw ne def na recours ba xaw ma gars yi ne ko amul affaire yooyu noonu mais xaw ma nag ndax man du woon maay bëre. te ngaa bañ a te ngaa te a te ngaa euh, la. non làmb am na lépp man man dew ma ci làmb ji pour xalaat li Fils de Balla di def zongale nee naa la man li may indi laa gëm te te làmb ji buñ te demee man moom balaa moo xalaat li indi man ma indi li ma indi ba pare. nga ni. moom balaa moo xalaat lim indi man ma indi li indi ba pare. fils de balle laa laa jël mu ne ma yow balaa bu arbitre sifflé balaa ngaa calculer mu dox sa kaw. ma ne ko ndax ñeme nga dox ci kaw général mu ne day dox sa kaw. loolu noonu ay wax la rek mbër musul dox sama kaw. ba ma dalee bëre ba tey mbër musul dox sama kaw. est-ce que xam nga ni fils de balle day xeex. day xeex gauche droite am doole da koy dëggal. Mhm. bu xeexul sax ma mere ko lamb jooj dañ cee war a xeex. nga ne bu xeexul nga mere ko. ma mere ko. mais sa bu xeexul ma sa waay de sa waay yow yow yow la mës déggee ngay wax ci combat boobu dafa mel ni da nga xeeb fils de Balla lu tax. non xeebu ma ko xam nga xam nga adversaire boo jël lekk avance am di xëy di entraîner di def trois séances des fois nga dal laal quatre séances. ko ku toog naan da nga koo xeeb xëy na loolu ay dóor la xalaatuma koo xeeb laay la xeeb man tollu ma fu may xeebee ah, man laalaguma roi des arènes ma loolu defaguma fi dara di xeebaate su ma la déggee boo waxee ni euh, entraînement a taxaw li ngay ci entraînement du ko ci entraînement daf may xaw a jaaxal est ce que du xeeb non dama ne dama ne man kuy def trois séances entraînement moom xaw ma lu may entraînement li li musuma ko musu musuma gis muy entraînement boog par exemple wala boog mu maanaam li may entraîné man man moo ma wóor comprendre nga kon tey jii nii man gëm naa ne man man li may liggéey man ah bariwul bëriwul suñuy moroom yi koy liggéey. yow da nga jàpp ni yow yaa gën a ñeme entraînement Fils de waaw loolu ah loolu loolu bu làmb jaa leer. moom nee maa ngi koy maa koy laajte mu ne daan dana day entraîné ñëw ba yi foofu daan ngeen di ngeen bëkkante ci entraînement yi foofu mu lay xool nga koy xool. daan nañ ñëw din nii mu may gis ànd ak gars yi mais man suñu daan ànd entraînement man dañ may jox may diriger mais moom dañ koy diriger ak boole koog di ko forcer forcer yu metti fii sa baax la ñuy la ñuy ñi ma daan àndal di entraînement amul ku ci tooyul ñun ñëpp amul ku ci tooyu laala te moom ba moom moom dañ koy forcer ak di ko yuuxu des fois deux cotes su ñëw trois di ko waaw mooy loolu. ah parce que parce que moom moom peut-être est que du doon parce que dafa di professionnel bu mag moo tax mu am ay coach yu koy entraîner. non pas pas professionnel da ngay toll boo xam ne day am loo xam ne da ngay bëgg mu ñëw faw ñu gëtëm la ñun ñëpp xamante nañ ku ci nekk xam na lu sa morom di liggéey mujj gi gars yi ko doon forcer naan ko gis nga sa daj gis nangam. pour motiver ko pour mu mën a dem. donc mais mais mais mais mais ñu gis ni Fils de Balla saa yu jàppee day def action te yow ngay bëre eh, ngay mbapatkat aussi mais boo leen jàppante ragaloo contact ak Fils de Balla yow. génn dugal génne ah loolu loolu loolu su ma ko ragalee àdduna wax ak man. Ah. amul amul lu may sóoraale ci làmb jooj du ci xeex du ci contact. lu mu ci bëgg nee naa ko bu ko neexee ñu samp xeex cinq minutes soo ko jàppoo mu xool lu ko neex ñu jàppoo du nee nañ lim mënee daa mën jàpp dinaa ko may mu jàpp ñaari ngemb ñu xool ba xam dina zongale général général di nga may la nangu loolu nga may mu dugal ñaari loxo bi dinaa ko may mu dugal ñaari loxo yi jàpp ngemb ba xam dina zongale général maa la wax li ah làmb jooju yàlla nañ ci jëm ak parce que làmb jooju làmb la joo xamante ne làmb ju ama am solo mais ki nga tëgg. mooy Assane Ndiaye. ki mhm. mooy mhm. wax si Assane Ndiaye balaa ñoo jàll. waa Assane Ndiaye moom Assane Ndiaye promoteur la comme promoteur yëpp di ko ñaanal jàmm suñu borom suturaal ko defal ko jàmm. comprendre nga ndax ku ne xam na ni tëgg làmb dafa dafa metti te nee naa leen promoteurs yi buñ amul woon mbër yi duñ existe ndax gisoo fi benn mbër buy tëgg boppam il faut mhm. promoteurs yi ñëw. déplogué seen moyen ñëw jëm ñëw tëgg pour ñu bëre. Mhm. kon dañ koy ñaar rek mu eggali waaw. alors alors ñu gis ni ñu gis ni ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye da ngay faral di citer lu bëri ci say propos dem nga ba jàpp ni bopp moom moo fi dàq bëre lu tax. waaw da koo wane. Hmm. da koo wane yàlla dogal tamit ñu am ci moom cofeel ndax laa maanaam li li li ne ci xol rek feeñ ci jëmm. yàlla dogal na ñu am ci moom cofeel gis cofeel bi nag lépp lalu ko dara lalu ko lu dul li muy wane ñu bokk bëgg-bëgg bi muy suñu grand ci làmb moom di muy def la boo xamante ne ñun dañ ciy gis suñu bopp loolu la rek. gis nañ ko aussi mu boole la ci ci ci ndaanaan yi nga xamante ne jàpp nañ ni euh, euh, la ay ay futur ngeen ci làmb alors mm-hmm. relation boobu noonu am seen diggante lan da ngeen di mbokk dégg naa ay mbokk soose ngeen quoi. déggatuma la de xoolal sa micro bi. ah. allo. dégguma de. maa ngi lay dégg pourtant maa ngi lay Ndeye indil ma chargeur bi Alima am na ma xool. allo. voilà mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan ñu ngi kontaanee bu baax. di leen bëggee di leen siyaar euh, bu lamb waxee dëgg rek mille pour cent fils de balle un général <laughs> mais mais yow kii <laughs> fan général bi. lu mu nabi lu mu nabi mooy lan tabal jeer <laughs> xalil maa ngi siyaar ah, Dave maa ngi siyaar aussi Maysa ah, maa ngi siyaar voilà soixante voilà général ma dégg